ci turu président Idika ñu ñaanal ko yàlla wéral ko ndax dafa xaw a tawat ñu di la siyaare Mbàkke di la yóbbante nuyoo ci xalifa bi xañ na sax fa lañ jóge mu jox ñu ndigal ñu ñëw ci yow waaye suñu nuyoo tamit ñu tegaat ko ci sa loxo rek nga joxal ñu ko ndax man ak yow ak Pape Seck ak keneen ku man doon ñoo bokk ci commission màggal gii ci CRD yi ak CRD yi ak national ba évaluation bi ñuy waaj a def kilifa gi nga xam moo fi ñëw nag ci secteur ministère des transport la bokk ñu koy wax Cheikh Omar Gaye mu jiite ANASER di bànqaas boo xam ni luy sécurité routière rek yàlla dogal na moom moo ko yilif ñuy ñaan nag sëñ bi màggal gii nga xam ni Cheikh Omar Gueye ak transport yi nga xam dañ fay ñëw luy syndicat tamit ñëw na fii ci barab bi luy président regroupement ñëw na fii ci barab bi waaye luy acteur mécanicien ñëw na ci barab bi waaye lépp luy acteur ci wàllu sensibilisation ci formation yi ñëw nañ fii ci barab bi ba ñi nga xam ne sax ñoo def accident ba am ci ay jafe-jafe sax am na ku fi teew ñu ko wax sama goro Ousmane yi kon sëñ bi ñoo ngi lay nuyu ci turu Cheikh Omar Gueye mii di ñëw nag di da li ñu fi indi nag mooy bëgg a tàmbali liggéey boo xam ni ci transport la bokk ñu ci laaj si ndigal ak di ci sàkku si ñaan muy màggal gi ñu jub si ñun ñooy secteur yi nga xam ne ñooy chauffeur si ñooy transporteur ñooy yóbbu nit ñoo leen di delloo kon war nañ ñoo ñaanal ba nga xam li amoon ci màggalu poroxaan ñu soxlawaat ko ci màggalu tuubaa gii ndax màggalu poroxaan dañ koo def ba bàyyi ko ñu ñëw fii ci yow nga ñaanal yow sëñ Muntaxa accident ñàkku ci am waaye kenn bakkanam loru ci ak màggalu poroxaan ñëw fii nag di sàkku si ndimbal loolu pour nga ñaanal ñu ko ngir màggalu Tuubaa gii yàlla bu ci benn bakkan faatu ci accident bu demee ba mënta ñàkk na doon accident boo xam dégâts matériel lay doon yem ci matériel bi loolu nag ki nga xam moo ko jiite di Cheikh Omar Gueye ñu dénk ko loolu mu ànd ak acteurs yi bàyyiwut kenn quatorze régions yi Sénégal yëpp ku dem syndicat wala ak mouvement boo man di bokk rek ñëw na fii man bii di wax nag Serigne Sall laa tudd jiite région bi waaye damaa dalal nit ñi pour ñu nekk fii te loolu yaakaar naan man ak yow gouverneur rek démb ànd nañ ci ndox mi ak tëli yi yàqu ci biir dëkk bi kon loolu su taxee tey ñu ñëw fii tey liñ ciy gën a sant mooy ñuy ñaan nag ñun suñu mbokki sëfoor si bu sëriñ bi yëkkatee kàddu lépp lu mu yëkkati kàddu ngir digal nu ko nañ ca góorgóorlu ca tem ca sëfoor noobul la war a doon ci li ñuy wax waaye du ci waxi kese dafa war a di sol colin gu baax di dawal dawal correct ba képp ku ko gis rek man koo naw ci li muy liggéey kon nag ñun sëfoor si fii ñu ñëw di fi sàkku si ñaan fi ñu fiy sàkku si waaye nag sensibilisation yi ñu fi bëgg ak digal nit ñi ci jàmm ak salaam te ñu bëgg ko nañ ko dégg te jëfe ko te fas yéene ànd ak moom ci lool kon sëñ bi kàddu yi transport ñoo ñëw seet si la ñu ànd ak suñu directeur Cheikh Omar ñuy ñaan nag nga ñaanal ko ndax mission bi mu yor mission bu rëy la te bi muy ñëw fii amul kenn ku mu bàyyi ci secteur transport kenn kenn ku ñëwut da ngaa yónnee moo xam syndicat bii la wala nga jiite acteur bu mën di doon loolu nag noonu lañuy ñuy ànd ñu ñëw nag fii nag ci Touba sàkku si fi ñaan sëñ bi boole ñoo yow ni lépp loo xam ni war na sama diggante ngeen dem leen ca moom ngeen wax ko kon kàddu yooyu lépp loo xam da cee manqué ci man mii ñu yónni la waaye lépp lu ci mat ci ñoom ñi nga xam ñoo ma yónni ndax ñiy déglu ñoo dàq wax ñii di wax kon nag geneen kàddu gi ci des dañuy bàyyi directeur mu àggale ko motti la ñuy ñaan nag yàlla defal ñu màggal gii ñu jub si zéro accident boo xam ne kenn du ci loro kenn du ci faatu te loolu la ñuy ñaan loolu la ñu sàkku si wasalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Basiiru Abdou Khadre ñu ngi lay ziyaara di la indil nuyoo président de la république indi la nuyoo sa xarit le ministre Mansour Faye nga xam ni moom la ñuy dénk lépp lu jëm ci wàllu dem ak dikk donc lépp lu jëm ci wàllum kaaraange yoon ñu ñëw fi ci ndigalam comme ni ko sëriñ Sall waxee nas lenn wala di ko nocc nañu dem seeti sëñ bi wut ndigal ci moom sàkku ñaan ci moom waaye sàkku mu biral kàddoom jëmale ko ci pèlerin yi mooy taaliba yi ñu dëgmal ci màggal gi bu ko defee yàlla mën nañu may sutura ñu am màggal bu am jàmm bu am salaam te mu am zéro accident mortel noonu lañ ko defee yàlla suturaal mi ba sëñ bi dalal nañu ba mu ñu dalee ñaanal nañu mu jox ñu ndigal nag nii lépp li nga xam ni war naa ko wax muy kàddu jëmale ci askan wi jox naa leen ndigal ngeen dem seeti sëñ Bassirou Abdou Khadre ndigal loolu lañ ñëw bëgg ko jëfe ñu am ci sawarte lool nag ndax sëñ Bass Abdou Khadre soppe la xarit la yàlla dafa dogal sama diggante ak moom ministre Abdoulaye di Diallo moo ñu boole woon booba man maa doon directeur des transports ñu am ay jëflante yu bare yuñ jëflante mu doon nit ku yiw nit ku baax nit ku aw tedd macha allah yan yàlla yokk seen wér fekk seen fan lépp lu ñuy ma bëgg ci màggal yàlla defal ñu ko Euh, sëñ bi maa ngi lay seddaloo nii mbégte bi ñu am gi tey te lépp dara war lu ko lu dul bennoo gi ñu bennoo ñun njabootu transport su ma nee njabootu transport nag si transporteur bi lay dalee ki leen représenté fii Modou Mbuub la nga xam ne ñoo yor afti moom soo ko waxee rek tudd nga transporteur yëpp mu ngi nii toog su ma nee syndicaliste képp kuy syndicat transport Sénégal dalek ci Alassane Ndoye Gora Xumma ñoom Diallo Niang Pape Mamadou Ndiaye euh, euh, euh, Mansour Ndir ñoom ñëpp teew nañu ku ci teewul it yebal nga sa ndaw wala nga joxe nga sa ngànt ñu nangal la ko képp kuy regroupement nga yor si waarum gaaru ceer yi di ñaan yàlla suñu mbokk suñu xarit idika yenn ko yàlla fëgg bopp bi fi mu tëdd ne sa Matlabul Fawzayni yan na ko yàlla saafaral parce que ndaje nii daaw fii sa kanam teewoon na fi ñu ngi koy ñaanal yàlla di sàkku si yow ñaan aussi pour que yàlla suturaal ko mu jóg del soit si njaboot gi donc lépp luy groupe regroupement transporteur muy gaaru ceer yi ñu mën cee ràññee la Serigne Sall boo nee Serigne Sall rek tudd nga ñëpp ñoom Dame Lo ak ñoom euh, Idika ak ñëpp ñëpp teew nañu maanaam ak président Aliou Lo bu Dakar lépp lu jëm ci wàllu association yi nga xam ne ñooy def def dépannage gratuite muy mécanicien yi moo xam Revas la moo xam aliment la 2AM moo xam euh, Lamp Fall la ñoom ñëpp teew nañu képp ki nga xam ni da ngay jàngale maanaam dawalin muy oto école nga xam ne ñoom ñoo jàngale ñii dawal teew nañu képp ki nga xam ne aussi loru nga ci wàllum accident nga xam ni am nga ci ay laago yónnee nga sa ndaw mu ñëw teew donc Sénégal moo toog ni sa kanam sëñ bi li ñuy sàkku mooy ñaan loolu ngeen bëgg jàmm ji ak taw feexu askan bi te loolu la ñuy sàkku si ñu jox ñu mission bu diis nag waaye li mu diis diis diis fas yéeneen ko bokk ak askan wi ñu jàppale ñu ci moo tax ñoom ñëpp macha allah ñu mànkoo bennoo jël seen ay doole ànd ak man pour ñëw ñu ziyaar si la ziyaar si sëñ bi sàkku ñaan ndigalu sëñ bi nag mooy comme Sénégal luñ jàkkaar lool sëñ Bass mooy porte parole yoon wi daanaka mooy porte parole Sénégal parce que yoon wi mooy Sénégal loolu la ñu gëm su bërilee kàddoom jëmale ko ci askan wi ci wàllu nu ñu war a respecter code la route ak nu ñu war a sàmmantee mbirum tali bi yaakaar naa kàddu googu fu muy àgg. ñun suñu kàddu wala beneen kàddu war na waru fa mën a àgg wala àggu fa moo tax sëñ bi ni lépp luy kàddu délégué naa ko sëñ Bas boo leen demee dina yëkkati kàddu jàkkaarloog askan bi wax ak wax ak pèlerin yi ñëw yi pour ñu charte woo code de la te lii tey ñu def nii mooy tàmbali campagne bu mag bi nga xam ne ñu ngi koy nas muy anager muy agence nationale sécurité routière bi ma jiite ànd seeg acteur transport yëpp pour yàlla may ñu am màggal bu dal lu ci war ci wàllu moyen ànd seeg force défense sécurité mooy police mooy gendarmerie mooy sapeur yi muy croix rouge muy bo eh, muy acteur transport yëpp ñun ñëpp ñu ànd maa ngi ko nekk benn parce que ñun ñëpp bokk benn kuréel fu ñu toll nii barki dem rek lañ def réunion bu mag fële ci Ndakaaru man ma présider ko ñëpp teew police ak gendarmerie ñëpp teew ñu leen di gëm gërëm di leen remercier seen mobilisation aussi donc mobilisation boobu la ñu fas yéene taxawee ci màggal gi ñu bëgg si taxawaay bu fees lool ak seen jàppandal ak seen ñaan yàlla may ñu tawféex yàlla may ñu màggal bu am zéro accident mortel yàlla mën na ko parce que ñëwoon nañ fi ñaan ci màggul Poroxaan bi comme ni ko sëñ Sall waxee noonu lañ ko defee demoon sàkku ji ñaan ba ñu dellu seet yàlla dogal na ci màggalu Poroxaan amul benn bakkan bu ci rot ci wàllum accident kon yàlla mën na ko yal nañ ko yàlla defal sëñ bi duñ jël temps bi mënoon nañu xaabaabal wax leneen waaye daal xamal ni euh, ministre Mansour Faye tukki moo tax ñëwul parce que tey si guddi lañu ñibbisi mais moom si boppam moo bëggoon a présider en tout cas diriger délégation bi pour ñëw waxtaan ak waxtaan ak yow ci ci ci wàll woowu. Euh, leneen li mooy euh, sàkku ci yenn ndigal parce que ñoom ñii di acteur acteur transport yi euh, du ñu jàpp benn bés muy bisu àjjuma le 25. ni du ñu bëgg a wax du ñu ko bëgg a def benn journée de prière nationale si gare routière yëpp Sénégal. ñu xëy wàccee fa kaameel ñaan yàlla musiba ak balaa yi ak accident yi yàlla yàlla fanqal ñu ko loolu ajjuma bii la ñoom ñoo ko defal seen bopp te man leen nag fépp fu ñuy jàngee alxuraan fépp fu ñuy ñaanee pour accident yi wàññeeku man de su ma yàlla reyul dinaa ci teew sama doole tamit dina ci teew ma ànd seeg ñoom ci wàllu woowu loolu tamit ñu sàkku si yeen ndigal ci loolu pour ci wàllu surtout acteurs yi pour ñu jëm ci bis boobu bu ñu si jógee nag. ñu ngi commencé nag programme yi ñu war def ci wàllum gàmm màggal gi yëpp ci wàllum sensibilisation ànd seeg ñoom Pape Seck ànd seeg acteur Touba yeeg acteur national yëpp ñun ñëpp ñu ànd ren loolu mooy euh, particularité bi mooy yàlla tàppe na xol yëpp ba ñëpp àndandoo nekk benn ñëpp àndandoo nekk benn amul benn waaso amul benn parparloo ñëpp daal seen yitte mooy accident bañ a am wala buy amit mu yem ci dégâts matériel loolu daal moo doon kàddu yi di wax asalaamualeykum wa rahmatullah di la ziyaare di la baalu àq asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Omar Gueye ak mboolem ñu mu àndal ñëpp di ay transporteur ak ñi bootu ci seen ginnaaw ñëpp di leen nuyu di leen sant di leen gërëm ci jéego yi nga xam ne yéen a ngi koy def ngir waajale ko màggal gi te ngeen yor ci wet wet fànn gu am solo ndax yéene déplacé nit ñi di leen indi kon loolu cër bu rëy la ci màggal gi ñuy rafetlu sa taxawaay bu baax ndax gis nañu bi ñu fi accès ba tey yaa ngi góorgóorlu ci yitte yi ak di ko gën a dolli ak di gën a benn la ña fa nekk kon ñu ngi leen di dara jàmm di ñaan màggal gi ñu jug dugg ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñu borom aar ñëpp sàmm ñëpp tey jii rek bi ma demee kër suñu son bu jabootug sëriñ Abibu ñu ngi doon wàcce kaamil yu bari yoo xam ne lañ fa wàcce tey mën na ñaari junni kaamil ci bis bi te sëriñ Saliou moo leen ko digaloon waxoon leen ngeen fas yi ñëpp màggat ci jàmm delluwaat ci jàmm kon ku fi nekkal sëriñ Tuubaa ku ne rek bakkanu nit ñi ñor na la lool Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk ak ku fi mas jaar ci diggante bi yeesal nga diggal la ngir loolu jagleel ko mboolem ñiy màggat si ndax nit ñi jëfe ndigalu Serigne Touba moo leen gënal lépp bu ci seen bakkan doon desi jaral na leen ko ndax misaal bi rek mooy daaw jëkk bi nekkee ci wéradi gi nga xam ne àdduna sépp la jaaxaloon ba makke gi nga xam ne ab ponk la sa ci lislaam demoon nañ ba tëj ko lu ma ñaari at yoo xam ne kenn diwut màkka waaye nit ñi seenu dogg ak seen pastéef tax lépp amuñ ci solo jàpp ne bu seen bakkan dee desi jaral na leen ko waaye nag yàlla suñu borom moom Euh, loolu bu wax ci alxuraan rek dama leen di seetlu waaye duma leen wan ne dama leen di seetlu dama leen di seetlu ba xam li ngeen di wax dëggali ci yéenam déet kon nit ñi seen passif ak seen dogu ak seenu fas yéene jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa app amul dara lu ko mën a baare amul dara lu ko mën a téye waaye yéen ci seen jëm bopp nag yi ndegam yéen ay yilif ñi nga xam ne mooy safoor yi ndax safoor yi ñi ci ëpp ay transporté ñu moom oto yi ay benn benn ñoo ci moom seen oto yi bopp kon ñoom itam ñu gën a fàtt fàttaliwaat rek waxtaan ak ñoom ndax accident yi bari na lool dëggale nag doomu aadama moom wallahu xalaqakum ma taamaloon suñ borom lépp lu lu doomu aadama jëf rek moo fekk na mu dogal ko waaye dogalub yàlla boo gis nag day am sabab zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat bima kasabat aydi nnas liyudiqahum bada allati amilu laallahum yarjiun wa ma asaabakum min musibatin bima kasabat aydikum kon bari na dal nit loo xam ne moo ko teg boppam kon safoor yi itam ñu ngi leen di soññaat bu baax a baax ñu gën a góor rawat na ndigal la xam ne Cheikh Mahamadou Fadil daana ko santaane ci ñu gën a xool li ñuy def Cheikh Mamadou Fadil xam ngeen ne yàlla suñ borom dafa defoon ci moom ba lépp lu wax ci làmmiñam bu ko bu ko kafee sax suñ borom def ko loolu ko yàlla defal waaye dégg ngeen lam ci jàngale nga xam ba àdduna tukki ku sàmmoon teg loola néew ma accident du waaye dana néew kon ñu leen koy fàttaliwaat bu baax ndax bu fekkente ne màggal Tuubaa nañ xam ne du wutukaayu xaalis du foire du barab boo xam ne itam commerce fu war a yëkkati nit ñi wala muy foo xam ne da ngay jàpp ne loo fi amul rek ba déwén doo ko amaat nañ xam ne barabu jaamu yàlla la barabu delluwaat ci sa boroom la barabu sant yàlla la kon bu kenn jàpp ne dangaa war a dem ci màggal Tuubaa ngir wuti am koom waaye boo ko mënoon sax dangay ngay fexe ba indi nit ñi te duñ fay ndege mënoo ko nag ñi jug bàyyi njaboot bàyyi ay wajur bàyyi seeni doom wala ñu bàyyi seeni mbokk wala seeni ku mën a doon bëgg siyaare si màggali si delluwaat ci jàmm seen bakkan des fa diis na loolu am na ci loo xam ne dogal suñu biro waaye am na ci loo xam ne ci nit ñi la ndax bu fekkente ne dagaa jóge fu sori bëgg a jóge ndakaar bëgg dem am ñetti yoon ci bis wi wala ñaari yoon loolu bokk na ci li indi ñi jafe-jafe dañ xam ne doomu aadama lu suñ borom bindu ci moom ci wërsëg bu doon jeexal dundam gépp ci fàggu du jot wa ma min dabbatin fil ardi illa ala llahi risquha kenn ku ne la suñ borom bind ceew yow du jaas mukk kon nit du lekk lu du wërsëgam bu ci ñëpp àndeek dalu xel ci loolu ànd ceeku tey ci loolu rek yàlla mën na cee def jàpp ndimbal ndax bu ngeen xoolee daaw accident yu bari na lool ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi jéego yu ne def nañ ko gendarme yi gën a jege police yi gën a bari waaye ci xayma daanaka mën a ñaat téeméeri accident ak juróom fukk xam nga loolu bari na la ci des si bakkanit it bari na te yàlla tere benn accident bu amee rek mën naa yóbbu def fukki bakkan kon loolu itam ñi nga xam ñooy responsabilité di gàddu nit ñi nañ nañ xool ne yebuñ ay xar yebuñ ay martis ay doomu adama la yeb doomu aadama ñi yeb nag ku ci fasaale jaamu yàlla fasaale ci liggéey Sëñ Tuubaa lay sa wërsëg suñ boom dana ko ci defal te màggal gi kat suñ tubaa def na ci barke boo xam ne képp ku ci def yitte def ci ak farlu doxe ci pëstéef màggal gi dana la defaral dana la defaral ba déwén waaye boo jàppee ni ci ñetti fan màggal gi li nga war a am ci koy am loolu jafe-jafe la lay indil kon nag ñi ngi soññ ñëpp di leen gërëm di leen gërëm yéen ñi nga xam ne tam yéen nekk seen kanam rawatina bi nga xamee ne ci màggalu poroxaan gi boo fekk na garab metti lool ba ñëpp jaaxle waaye ba ngeen ci déggee kàddu sëriñ bi rek ngeen bàyyi lépp loolu nag kon moom maa kaana allaahu li yadara almumin ala ma antum alayhi xata yabisa alxabisa min altayibi wa maa kaana allaahu li yudinakum ala alxabi loolu rek mooy li ci ne waaye kon ngeen xam ne loolu yàgg na fi ndax bu ngeen fàttali koy jamono Cheikh Mamadou Fadil ba nga xamee ne dem na ba garab metti lool ci semaine de fer ba mu ci dugalee kàddoom ci la jeex kon loolu lu yàgg la jamono Cheikh mu Moustapha it lu mel noonu amoon na kon loolu jubluñ ci dara lu may lu jariñ nit ñi rek ndax ñoom fi nekk ku fi nekkee Sëriñ Tuubaa ku ne yàlla suñ boom def na ci yow lu la Sëriñ Tuubaa waxoon ne kenn mënumaa xupp kenn mënumaa xëpp ñaar yooyu ku fi nekkee Sëriñ Tuubaa ku suñ boom teggil na la ko kon lu ñuy def rek lu jariñ bindeef ya tax lu ñuy def rek lu sàmm bakkari doomu aadama bi moo tax ndax man eh, man xatala nafsan bi xëy nafsin aw fasadin fil ardi fakka annama xatal naas jamian wa man axyaaha fakka annama axya naas jamian assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu